Khadim Diop maa ngi lay nuyu. Euh, maa lay fay. Euh, yow yaay euh, njiital conseil national de la jeunesse. fas yéene waxtaanee lu ñeel ndaw ñooñu le jamono ji bi ñu doon leen lim seeni i jafe-jafe yan ñoo ci gën a fës. waaw jafe-jafe ndaw yi Sénégal bi nag bari na. ci jug yi nga xamante ni tey moo ci gën am solo. chômage des jeunes mooy jeunes yi nga xamante ni jàng am métier te mënuñoo am liggéey te seen pourcentage bi toll ci. quatorze pour cent beneen jafe-jafe ji mooy li nga xamante ni mooy pression sociale leneen li nga xamante ni aussi tamit moom la ndaw ñi am jafe-jafe mooy formation yi nga xam ni ndaw ñi dañ koy def suñ génnee li nga xamante ni tey moom la patronat bi di proposé loolu du méngoo liñ gis aussi tamit mooy que ni jeunesse bi am liggéey boo xamante ni tey dinañ ci faj seen soxla gis nañ aussi que ni tey jeune bi su gisee ni dafa bëgg a créer benn entreprise yi koy laaj ak këyit yi koy laaj day xaw a bari ba nga xamante ni ndaw boobu day découragé ba du mën a tabaxal yi nga xamante ni mooy entreprise mhm. euh, beneen soxla ndaw ñi aussi tamit mooy suuf tey jeunes yu bari am na ay projet pour dellu ca dëkk ba wala ñu toog ci Dakar bay mais mënatunoo gis suuf boo xamante ni dinañu permettre ñu ñu bay mais aussi tamit mënatunoo gis suuf boo xamante ne sax dinañ leen permettre tey ba nga xamante ni tey ji dina am pour dëkk beneen eh, jafe-jafe bi ndaw Sénégal am mooy que ni tey fan yi nasa ko noccee dur fa gis ndaw yi Sénégal yi soo demee ci assemblée nationale tey amul fukki député yoo xamante ni ay ndaw la tey soo demee conseil économique et social benn ndaw kese tey moo koy représenté jeunesse Sénégal nga dem au conseil des collectivités territoriales mën naa ni ñaari ndaw fa nekk. tey soo dee xool tey gouvernement du Sénégal. benn ndaw rek tey fay nekk. Mhm. li nga xamante ni tamit euh, seetlu nañ ko. te collectivité territoire yi liggéey bi ñu waroon a def ndaw ñi. di leen jàppale di leen former. di leen encadré liggéey boobu defuñu ko. baneen li nga xamante ni moo gën a yokk euh, coono ndaw li ci fii ci mooy les conséquences économiques Covid 19 parce que bi Covid 19 yi ñëwee. tax na ndaw ñu bari tey ñàkk seen liggéey. ak difficulté yu bari yoo xam xamante ni amoon nañ ko gisuñu woon euh, saafara si moo tax tey fii ñu egsi tey ñu egsi nga xamante ni tey gouvernement bi tey nee na dina jël ay mesures pour justement si mesures yooyu. jiitu réew mi daal dinay annoncé ne euh, lii di conseil national pour l' insertion et l' emploi des jeunes euh, dina daal di daje gën kaa yàgg 10 avril. waaye tam euh, lii di 350 milliards dinañ ko mobiliser ngir financement ak liggéeyu ndaw ñi yemul foofu am na yeneen mbëbët yi nga xamante ni nemmeeku nañ ko lu si mel ni gën a baral liggéey bi jëm si réalisation 40. 45 centres départementaux de formation professionnelle ak 45 maisons de la jeunesse et de la citoyenneté loolu tamit ay jéego la. waaw état du Sénégal am na jéego yu bari yoo xamante def nañ ko pour jàppale ndaw ñi. mais li nga xamante mooy ñun ci tool yi. mooy jéego yooyu état yi def. ak li nga xamante ni jeunesse bi moom lañ soxla dafa am benn gap. tey damay jël benn exemple mooy trois cent cinquante milliards yi nga xamante ni état nee na moom lay jagleel ndaw ñi pour ñu financer seen projet de jeunes yi. baax na lool mais du doy du mën a répondre demande bi nga xamante ni jeunesse bi moom lan wane. te tey soo dee xool tey normalement suñ bëggee financer projet de jeune yëpp deux mille vingt et un dafa war a financer cent cinquante deux mille vingt deux cent cinquante milliards. deux mille vingt euh, mu nekk ci quatre cent cinquante milliards. te tey enveloppe bi nga xamante ni tey état du Sénégal moom la teg mooy trois cent cinquante kon tey jii day am benn gap de cent milliards. nga jëm ci li nga xamante mooy conseil national pour l'insertion et l'emploi des jeunes. comme ni ko nit ñi di dégg ci euh, communiqué de presse wala ci télé bi la ko jeunesse Sénégal di déggee noonu la ko conseil national di déggee tey ba fi may waxee ji amul benn courrier bu jógee ci ministère de la jeunesse wala ci ministère wala ci présidence de boo xamante ni dañuy informé par rapport ak loolu nga xamante ni état moom la def. njiitu mi fas yéene euh, waxtaan ñenn ci kuréel yi ëmb ndaw ñi est-ce que yéen euh, daal di nañ leen di convier est-ce que di ngeen ci bokk. waaw comme ni ma ko waxee woon ci conseil national pour l'insertion et l'emploi noonu laa ko waxee tamit ci appel boobu. ni ngeen ko gisee ci communiqué euh, conseil la ko conseil national de la jeunesse gisee aussi. amul benn courrier boo xamante ni envoyé nañ ko conseil national de la jeunesse ah, waxtaan woowu jigéen su bokk dinañ ko rafetlu nag mais ñun liñ bëggoon waru woon di nekk loo xamante ni dañuy xaar ba problème am rek ñu ñu bëgg a woo jeunesse bi di waxtaan ak ñoom tey normalement tey chaque six mois président de la république dafa waroon a woote ndaje bu rëy woote woo jeunesse su Sénégal bépp laaj leen seen xalaat ak aussi tamit ni réew mi di doxee tey su fekkoonte ne tey loolu amoon na depuis 2017 bi ñu ko falaatee aussi tamit mu def ko kon tey problème yi du egsi tey préoccupation jeunesse su Sénégal yi mais nag fekkente ni tey taxaw nañ ba euh, xam ni tey bala ñoo def dara dañoo war a ndaw ñu waxtaan ak ñoom ñu doon koy rafetlu te di xaar aussi tamit euh, convocation bi nga xamante ni mooy euh, tax jeunesse su Sénégal participer ci ndaje yooyu nga xamante ni moom la président de la république bëgg bëgg jiite. Khadim Diop maa ngi lay sant di la gërëm. man aussi maa ngi lay sant la gërëm. voilà di fàttali yow yaay njiital conseil national de la jeunesse. Khadim Diop bonjour. Vous êtes le président du Conseil national de la jeunesse. La jeunesse face à son destin, un destin ponctué d'incertitudes et d'interrogations, mais aussi beaucoup de préoccupations. Lesquelles, par exemple Aujourd'hui, les préoccupations de la jeunesse sénégalaise, c'est le chômage. Le chômage des jeunes aujourd'hui tourne autour de 14%. Il y a aussi la pression sociale, le regard des autres. Nous notons aussi l'inadéquation entre la formation et l'offre d'emploi. Comme vous le savez, chaque année, plus de 200 000 jeunes sortent des écoles de formation et des universités et qui ne trouvent pas du travail. Tu vois des jeunes qui travaillent, mais qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Nous avons aussi les lourdes administratives pour créer une entreprise. Et je pense que ça aussi, les jeunes ont des difficultés pour créer une entreprise. Il y a aussi la problématique de l'accès aux fonciers par les jeunes. Que ce soit euh, à Dakar et les régions, les jeunes ne trouvent plus de terre pour la mise en œuvre de leurs projets. L'autre difficulté aussi, c'est l'accès au logement et le coût élevé de la, de la location. Nous pouvons noter aussi la non-implication des jeunes aux instances de prise de décision. la jeunesse sénégalaise représente plus de 65 pour cent de la population. Et si vous allez au niveau de l'Assemblée nationale, euh, euh, cette de 2 pour cent. Donc, raison pour laquelle euh, le Conseil national de la jeunesse, en partenariat avec d'autres organisations de jeunesse, ont proposé à, à l'État un projet de loi instituant un quota de 30 pour cent de jeunes dans toutes les assemblées euh, électives. Nous notons aussi une de politique migratoire. Et c'est ce qui pousse les jeunes Sénégalais à aller dans le désert pour rejoindre euh, l'Europe. On peut citer aussi la des responsabilités des collectivités territoriales dans la prise en charge des préoccupations des jeunes au niveau de l'acte 3 de la décentralisation. Rares sont les maires et les conseils et départementaux qui soutiennent euh, les organisations de jeunes ou bien euh, la formation. Il y a aussi les conséquences économiques et sociales euh, euh, de la COVID-19. de la euh, fermeture des on a noté les chômages techniques des jeunes dans les secteurs du de l'hôtellerie, de et surtout dans le secteur informel. Mais au euh, les efforts consentis et les initiatives prises de l'État, par exemple ce Conseil national pour l'insertion et l'emploi des jeunes mis en place qui va se réunir au plus tard le 10 avril. 45 de formation professionnelle qui vont voir le jour, mais aussi ces 45 maisons de la jeunesse de la citoyenneté. Oui, euh, l'État a fait des aujourd'hui, on doit mettre l'accent sur la politique des jeunes et plus euh, des jeunes. Comme nous représentons 65% de la population, on doit augmenter pour le financement des projets des Mais aussi, on doit les agences qui s'occupent des financements des jeunes. Il la Aujourd'hui jeunes se raison pour laquelle nous demandons une fusion de ces agences qui s'occupent du financement des projets de jeunes. Mhm. L'autre chose aussi, c'est de mettre en place une base de données des demandeurs de financement. Parce qu'on note aussi, il y a des jeunes qui reçoivent des financements au niveau de l'ADER, mais en même temps qui reçoivent des financements au niveau de, de l'ANPEJ. 350 milliards de francs CFA qui seront mobilisés également pour euh, euh, le financement des projets de, des jeunes. Quelle appréciation Ce que nous déplorons, c'est qu'à chaque fois, l'État attend à ce que les jeunes manifestent ou bien présentent leur colère pour que l'État euh, réagisse. Et je pense qu'aujourd'hui, on devrait avoir un État qui anticipe les besoins et les attentes de la jeunesse sénégalaise. Raison pour laquelle nous disons oui pour les 350 milliards, mais c'est insuffisant par rapport à la demande. Raison pour laquelle nous demandons à son Excellence le Président de la République, Macky Sall, d'augmenter cette enveloppe parce que si on fait le cumul des besoins en ce qui concerne le financement des projets des jeunes, ça tourne autour de 150 euh, milliards par an. alors que ces 350 milliards-là, c'est pour les trois années à Le président de la République qui a informé également qu'il va recevoir des jeunes et des mouvements de jeunesse. Vous y ce que le Conseil national de la jeunesse est déjà convié En tout cas, le Conseil national au pour mais aussi par rapport à cette rencontre. À cette rencontre. Khadim Diop, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le président du Conseil national de la jeunesse.